Yeah. jiitu si teg seen téléphone yi te déglu. Ah. biig wax naa leen dañoo am réunion bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi Singom yëg na ko def na lu ko neex jukkoom ji nag moom kese moo ko yor si kër gi te bu bu ñëwee ba toog fii bëgg naa ko xob si kaw bu suuf dara jugul si moom làmbit bi neex na ñeme na yàlla lu wax day ndur dëgg te dara su dëgg kër gi nag laa bëgg mu changé. kenn képp laa xam ne képp lu ma ko wax loo mu wax ko fu ma ko yem loo mu yem ko muy jëmm ji te sama jarbaat la moom mi sama jarbaat la ñoom ñett ñoo bokk ndey ak baay seen yaay soj ak rey yaakaar naa si légit ñu opéré ko mu dee kii sama doom la waaye rek na ba dàq ay yére jot laa sol respecté boppam moom ak si moom yaakaar lool waaye bu mu duggee si internet bi ba léegi nekkatu si ngoom nag lu mu guddi guddi dina ñëw ci kër gi lu ma leen war a wax dinaa leen ko wax di ngeen ko dégg te di ngeen ko def. bébé nga toog. waaye neex na waay. seen daaneel bu ma leen ko waaye lu ma bëgg nga xam ko si ngoom joxoo ma cër woote naa réunion nga dégg réunion bi nga defi lu la neex bàyyi ba nekk ni ngay doog a ñëw léegi na xam la laa bëgg ñoom ñaar ñii nan jóg ñoo ñoq génn li nga wax xam nga ne dara du ci am kii sama géwéli jabar ak sama jabar ñoom ñu war a génn ci ci kër gi hmm. sama këru papa ak sama këru yaay kër bi nga xam ne sama papa moo newoon ñaata bu njug di am yow yaay jug génn dem summi sa yére yu bon yi nga sol yére yu bari sagar yi kenn xamul waax nga bu yàgg bi nga xam kenn solatul eh, dem baax na confirmation laal doon utal nga xam nii laa dëkkee ñoom ci kër gi kenn joxuma cër réunion bi nag dina tàmbali te lu ma war a wax ci réunion bi yëpp dégg naa ko sama bara <laughs> bul ci bàyyi lu toll ni torofatal ay ni waxee leen ko comme nu ma leen ko waxee mu dugg seen nopp ñoom ñëpp tawaayu problème. démb yéen waxoon naa leen ne leen réunion dafa am 17 kër gi nag réglement bi dafa changé amul ay taxawaalu ba yenn heures yi dem waat dafa jeex ay heure bu leen neex ngeen tëdd si heure bu leen neex ngeen génn sama nijaay nag indi na fi nitam maa ngi koy bàyyi mu yeggale dinaa wax règlement bu bees. mami dinañ dem soirée bi moom yëpp ay dakk. léegi léegi lii moo fi nekk. lii mu wax samay kàddu la maa ko wax la moom la wax balaa maa wax leneen yow laay bàyyi nga wax na cër la la jox waxal ma déglu la. waaw ah, kay bàyyi boo defee loolu def nga li la war mooy cër googu nga ma jox parce que cër man dama ko fay am. je kilifa moo kër gi sama kër bàyyi la sama yaay liggéey fi liggéey bu rafet ba yàlla def mu génn àdduna bàyyi ma fi may taaw bu góor di gérer lu fi dee maa ko rey. yow ndijaay bu dul cër bi ñu la jox cër bu ndaw bi nga xam ne mérité ko fii doo fi dara te ndijaay maa ngi jéggalu ci kàddu yi fas sax yenn saa yi nee ko kor baax na ndax yenn saa yi mu daw ba mbëkk mi xaw ma de xaw ma damay expliquer rek donc man kër gi damay ma fiy jox sama wàll ba mu mat sëkk grande sœur yow moom léegi gis naa la ngay cenc mais amul benn problème kii heure bu ko neex la fii dugg heure bu ko neex lay génn ndax sama femme mooy sama jabar di jàmm sama xol ko sunu jeeg bi kii sunu géwél la sunu mbokk la sunu xarit la. yaa ko gis déggaloo yaa gis yaa teg sa bët bu confirmation am nga mos da nga deew càngaay di nga dee kenn du yaa xam te nañ dem moo diis yow lu ma naqar kër gi yëpp wax naa ko dina leen ko wax te di ngeen ko dégg te di ngeen ko jëf kàddu gaa ngi waaleykum salaam désormais kër gi day am changement six heures du matin ngeen yeew mm-hmm. sangu ndékki amul tëddaat midi la añ bi tege def ko nii si gémmiñam waaw hmm. yaa ngi indi fi sa sukk ba pare te eh, respecté wu la. te toi añ bi midi koy teg deux heures yi ñu tëdd nelaw ba cinq heures ngeen yeewu une heure de laa ne may ngeen doxantu ñëwaat. amatul dem soirée. vendredi jotee une yi ñëpp ngeen génn kër gi man kay mun naa déplacer imam sax indi ko fi eh, nit. bu ñu setul nag. caméra bu ñu setul nag. te eh, yow njëkk tey nag ci tey fi ñëw day fi ñëw kon dimanche te quatre nga fi ñëw cinq heures nga ñibbi. pour lan loolu. kii c'est ma femme. ci boo ko xamul te sax sëñ bi yow yaay toog seen kër ba boo ba am combat. boo amul combat ñu ne utal la ko am na mbër bu nekk suñu kon duubu météo bi moom combat rek lay xaar. yow fii bi yow yaa. Eh, fenn lañ taw eh, eh, ci biti. xoolal. bu bëgg a fontoo la.

si moom. mami mami. eh jugal. déjà si moom bu dee fan laa jëm. tonton. contrat bi ñaata weer. six mois. oh. Pape man damay dem sama kër yaay de. tooguma fi. man man damay dem. Kan dama soxla woon dama bëggoon ñu waxtaan. dama bëggoon nga wàññi tuuti sa loxo. xale yi sonn sonn nañ temps yi. ah loolu gënul ah. ah wàññi ci benn eh. ba tey baax na. <laughs> waaye wàññil daal tuuti. Eh. instant moom ñu ngi tiit. Ah. waaw kon kul naa. Ah. ah yow kay 100 pour cent kul na. Eh. yow kay. macha allah yéex ngaa ñëw. sa à man sama xel du cere moo ci nekk ko hii bul wax. Ah. bu tam xarit bi rek. Ah. maa nar a togg bii cere. Hmm. ba muy wut sama yéen. xam nga tam xarit bi boo jëlee sa yéen ba wësal ko ba denc ko ba tam xarit bi ma nga defal sa ñeexu cere bu baax. def sa ñoom carotte ak ñoom pataas ak ñoom ginaar. Ah. ba bombal la cere ji. yow kay cere bu amul fenn Macky Sall sax mën na ci reer. ñaam bi kii kii pire gi nag. yàlla bu mu see. kuy sama ndey. ci yow de dama laa nar a roy ci tam xarit ji. Hmm. ju am maanaam. oui mais man balaa kii du mu bëgg a takk sama cere du mu bëgg sama jabar dafa quoi. Ah, ka wax jabar diggante bii dañ fay mën a takk jabar. oui. ay man. kam oui. kam yow tam bi jege si la da nga mën takk jabar ci tam bi. oui tam xarit bi c'est trois jours rek bëgg a takk quoi. kon yow am nga koy bëggee ko yow ma foog ne tàngal lañ ngay def. ndekete des fois nga sedda. oui mais naa sedd <laughs> kon de xale bi am na sens. oui. xale bi dal na ci. oui booy mhm. lu mu gis xale bi dafa ñu dafa ñu kum xew nag teg ci. Eh, bi dox mu koy xool ah, man kàmm yi ma. parce yàlla xale bi. xel mu gis na ko soxna si gis la bëgg la loo ci xam. lu mu la tontu. xanaa sëy bu neex. Ah! ay kaam. yow kam nekk yooyu yëpp denc nga ko yi yëpp yaa ngi koy lijjanti. kii la rek. ah kon def farata. ci tunnel la ngay may njëkk bi. oui yow laa bëgg kii quoi. mën nga bëgg la. kii <laughs> <laughs> kam nag bàyyi sa café yi. ngeen ne lan yow. quoi. ba. kii takk bi. <laughs> yow xam nga sa bopp. sii si si. yow xool nga sa bopp rek xool nga sa bopp xool si si xool naa xool nga li nga toll ak man li ma toll. yow xanaa boo ma yéegee damay dee. non mun naa féete suuf. xoolal man du ma sa moroom rek leen nag kila la fi indi nag laay woo mu lijjanti sa mbir. moom mu la fi mami man ni jaay tàngee noonu lay sedd noonu may sedd la tàngee man la laa la wax boo nga njaag yow de yaa bàkk njaag nag ba mu ñëw man ngay dëkku <laughs> dootoo ko defati nijaay nijaay mami nijaay na waay am eh nijaay kaay fi yow rek la lii nit ku ne yaa koy for indi ko fay dama bëgg a dee salaamaaleykum wa rahmatullah amu salaamaaleykum dara ma ni nga puus nga ñëw fii ma wax la li ma lay wax mami man du ma sa bu ngay benn bale man kay gis sama kër la fauteuil yi maa ko sama xaalis la jar. man la su ma neexee toog fii su ma neexee bañ a toog toog suuf. yow doo toog xam nga laa bëgg. tax ngay yuuxu sama tur ba fu waaye tool di dégg ni ñaay ni ñaay ni ñaay ni ñaay laa bëgg nga xam ni Ndiaye dinaa la yuuxu sa ponkal mi ngi fi indi xaw ma ponkal la xaw ma barigo la ñëw fi naan damaa nopp kii xool na boppam kii maa moom est-ce que ay la xool ko rek kii xanaa bu ma yéegee damay dee kii maa moom du combat waxala waxal ma jaa ko fi si jabaate ma torop eh eh Pikine Pikine ay ay mënaa ko ngooti nu ngay rey ñaari de comme